gune gi sàggana moroomu ndayam ndax dafa yar jaajëf salaam jàmm ku mbedd ni gës baa ngi nuyoo leema ku mëj wal waa dégg ko fay monsieur boy ji ji jili der égay boy grave égay messi tey nag euh, ñu ngi suñu émission Galsen sama game ñu dalal grand waay di égay Swiss business ñu fas yéene def benn bilan ci Galsen hip hop awards jàll na bëri na coow ba tey gaa ngi koy coow mais ndeyu mbili jaa ngi nii toog waay di ñu fas yéene ko laaj mu indil ñu ay leeral ci Galsen Hip Hop Awards buñ ci jógee duggaat ci quelques détails génnaat jeexal suñu émission waaye di yaa ngi ci seen sama game sur Equivox TV télévision bu mag bi. waaye Galsen sama game. waaw kon jël naa ko. mais un bilan positif en gros. Euh, ci loo xamante ne yàlla jàppale nañu ñu teewee cinquième édition. yombul parce que gars yi dañu naan tout le temps ci loo nekk boo defee ba cinq édition wala boo loo xas ba def cinq fois te gisoo ci sa bopp rek bàyyi la man tey laa ci gën a gis sama bopp donc euh, ba may tàmbale metti woon na lool cinquième édition bi ren ñu yàlla ñu jàppale ñu ñu jóge soraanoo ñëw Grand Théâtre euh, je pense que def nañu li nga xamante ne daal en tout cas moo ñu war muy man Euh, organisation bi le comité euh, animateurs yi jury yi tout le monde le public tamit def nañ seen wàll voilà parce que euh, déglu nañu dem nañ ci ay concert voté nañu def nañ leen war donc ñoom ñëpp ci lañu ñu bokk voilà maintenant li ñuy xool mooy lan moo ci li nga xamante ne moom la ñu Euh, amélioré waat pour xool déwén euh, ban direction lañ jëm e je pense que loolu c'est très important parce que chaque année nit ki même pas ci sa liggéey sax mais en tant même euh, sa jëmmi bopp sax yow sa bopp c'est bien ngay def bilan parce que mooy tax nga gën a améliorer wu yow sa bopp déjà dans bi mooy tax nga gën a améliorer wu ci li nga xamante ne moo la war say responsabilité jàppale li nga gën a jege sa borom donc euh, loolu yëpp bilan moo koy def moo tax def bilan dafa baax. cinquième édition am nga ci satisfaction bilan bi positif na gis nga ci sa bopp. mais est-ce que artistes yi tamit ñi ngi ciy gis seen bopp ñi nga xam ne ay participants lañ ci Galsen Hip Hop Awards yi. waaw bon en fait en tout cas li nga xamante ne ñun euh, ba ñuy jóg ne dañ koy def euh, niñ leen yëgalee ak niñ leen ko expliqué ñi nga xamante ne ñëw nañu gis nañ ci seen bopp. voilà ñi nga xam ne ñoo leen di teg bopp et il faut que gars yi di bàyyi di euh, di di tourner ci li nga xamante ne c'est pas l'essentiel l'essentiel fii mooy que les choses se fassent yaa ngi dégg voilà on respecte tout le monde nag tout le monde képp koo xamante ne euh, tu es un acteur concerné on respecte tout le monde quand je dis satisfaisant c'est-à-dire la chose s'est faite jàll na léegi nag li nga xamante ne euh, ñun suñu bopp ñun à na moom la ñu jàppee quoi moom laa lay wax ni mën a dinañu xool nan lañ koy améliorer et puis déwén ñu bañ bañ bañ euh, mu mu dalaat ñu. est-ce que yaa ngi dégg voilà te événement bi man comme ni ma yàgg wax gars yi chaque année dinañu xool lan la ñuy améliorer chaque année dinañu xool lan la ñuy sécuriser waat parce que pour que événement bi mu am assise bi ñu bëgg dëgg nee naa leen du leen ñu séentu sax ay sixième édition séentu leen ñu ay septième ba huitième édition parce que chaque année dinañu xool lan la ñuy defaraat dara xëyul sotti. dara xëyul sotti il faut tamit gars yi nañuy bàyyi xel ci effort bi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy def bu ñu tàmbalee ba ci six catégories ñëw ba huit ñëw ba dix ñëw ba onze tey dolli ci presque douze xaw ma treize trophées de reconnaissance effort yaa ngi ci ginnaaw yaa ngi dégg. et voilà c'est c'est peut-être que Sénégal problème bi nga xamante ne ñëpp même la plus grande compagnie yaakaar naa problème bi ñu am mooy communication parce que le Sénégalais ne cherche pas yaa ngi dégg. am na ñoo xam ne du ñu liir am na ñoo xam ne du ñu déglu am na ñoo xam ne ni ñuy déglu rajo noonu la ñuy tayalee dem ci internet bi am na ñoo xam ne ni ñuy demee ci internet bi noonu la ñuy tayalee taal rajo télé nag waxi noppi yaa ngi dégg tey ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñoo ëpp fuuf ñuy déglu rajo yaa ngi dégg walla ñiy seetaan tele donc euh, na gars yi jàpp ne chaque année dinañu xool nan lañ leen di gën a améliorer événement bi ba keroog muy am assise bi nga xamante ne moom la ñu bëgg unanimité amul fen xam naa ne l' événement n' est pas 100 pour cent man sama bopp 100 pour cent wu ñii di ko wax ak ñii di ci ñaxtu tamit kenn ci ñoom 100 pour cent wul. mais waaye lenn benn affaire rek la gars yi di métti lu mooy waaye de lu tax euh, artiste bu gañee ci awards yi benn awards doo am loo ko accompagner lu dul bi kese gars yi nee nañ bi vert la vert mënul faj soxla. gis nga dans les grandes cérémonies awards bu ñu nee catégorie meilleur nangam da gis ay sponsors ñi nekk à à droite dañuy toog bu ñu nee meilleur artiste de l'année diw da ngay gis sponsor dañ koy xëccoo xëccoo ko signal ko benn contrat wu six mois wala un an deal de publicité xaalisu awards foofu lay jóge mais pas que organisation bi moo koy yëkkati jox la ko man ba ma ciy def sama 10 mois de salaire à la première édition ba tey dégguma ci waaw góor jàmbaar yaa ngi dégg sale bi c'est pas gratuit logistique bi fa nekk sur scène c'est pas gratuit lumière yeeg écran yi c'est pas gratuit trophée yi commande la nekkul fii lañ koy defaree c'est pas gratuit yaa ngi dégg bu fekkee am na ñu ko xeeb am na ñu ko xeebul de gis nañ fi ñoo xamante ne bañ ko jotee gis nañ liñ ci def ba ci cinquième édition donc man euh, je pense que loolu c'est même pas une question c'est juste qu'il faut juste leur expliquer importance bi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw ak ban opportunité la la mën a indil sa dépend il faut savoir mettre la main sur l'opportunité yaa ngi dégg maa ngi koy wax euh, Fla de Ripper un jour ni ngi ciy waxtaan lu yàgg mën a ko mais yow nan nga mënee ñëw jël meilleur album de l'année ba pare doo tourner doo def dara man il faut monter en dossier approche les partenaires wala souvent yi nga xam ne ah gis nañ ni kat yéen kat yéen a ngi gunge euh, Galsen Hip Hop Awards depuis des années def ngeen ci lii man gën gagné naa ci lii lan laa mun a def ak yéen par force on va trouver un moyen bul jël rek xam nga après nga dem toog parce que man ak équipe bi yëpp Point Blank Pro li nga xamante ne euh, moom la ñu daj ak fi nga xam ne fa la ñu jaar ak li nga xamante ne loolu la ñuy def pour que guddi googu am. mais lan moo tax du ñu wax ci loolu. ñoom lu ñuy gis la ñuy wax parce que tey ñoom ñooy dugg ci net bi ñoom ñooy voté pour seen artiste gagné mais après dañuy séentu seen artiste bu gagné. man c'est pas un vote monétisé c'est un vote digital. man waxuma gars yi euh, y' a a un franc loo xamante ne dafay nekk ci vote yi parce que loolu première édition lañ defoon ci vote yi lañ defoon vote monétisé mais première édition da gis koo xamante ne euh, artiste bu ne voté pour moi publier ko sur ses réseaux. yaa ngi dégg mu gis jékki-jékki gis ay huit mille dix mille like dix mille j'aime mu jàpp ne dix mille personnes yooyu yëpp votel nañ ko ñun bu ñu demee xool grille de vote yi l'artiste n'a même pas deux cent votes loolu mënoo ko dugal ci boppam ba mu comprendre ko moo tax ma dindi vote boobu def monétiser te même ñi nga xamante ne gagné nañ bu ñu nee vingt cinq pour cent la ñu waxoon ne mooy dem à l'artiste gagnant de la catégorie catégorie bii ñi votel catégorie bi ki kay gagné. vote yooyu noonu la ñuy jël xaalis bi vingt cinq pour cent ñu jox ko artistes yi ñu li man rus naa la wax sax ñaata la gars yi catégorie yooyu noonu génnee ci yi daan nañ ci gis ku ci mel ni ñoom Dip dund gis ñoom ngaa ko baleen da yeneen artistes ñuy dem quelque temps booy na bokkatuñu lan mooy problème bi ba chaque année am ay artistes yoo xam ne dañuy gedd na dootuñu bokkati ci Galsen Hip Hop Awards yi lan la luy problème peut-être dañoo dem ba ñoom dañoo gis ni bëggatuñu bokk wala dafa am lu leen ci déranger man kenn waxuma ci dara euh, Dip daal laa xamante ne waa musique bi euh, forcé nañ ma une fois ne may foog ma waxtaan ak moom blasé blasé man leen ok d'accord euh, quand j'ai discuté avec lui ma gis ni kii li ko naqari c'est personnel en fait du loo xamante ne ci man la tàmbale ma discuter ak moom parce que mooy année bi nga xam ne damaa bëggoon jël Saïfa euh, Reptile Music laa bëggoon ba gars yi jotee biit bi artistes yi ils étaient contents mais bon moom ba mu nee moom bokkatul doo bëggul bokk ci Saïfa bi euh, yeneen booy yi tamit c'est normal qu'ils se retirent parce que ñoom ñëpp ñoo bokk label tu vois naxarluwuma ko c'est son point de vue xam nga c'est sa position mais tamit euh, terewul ñun tamit ñu continuer suñu yoon quoi. moom moom moom sax moom Dip Doundou gis seetaan naa benn émission muy expliquer nii euh, doon nga ko toog pour mu bokkaat mais ba mu bokkee sax première année ba mu bokkee xaw ma deuxième année bi grâce à masse bu Black Diamond la mais nekkul oversea nekkul li nga xam ne teg na ci bëtam xoolu ko sax affaire yooyu loolu bi nga ko dégloo jour artiste bu ko neex artiste bu ko neex tey mun nga taxaw ne faale woo awards mun nga taxaw ne bëgguloo bokk ci awards mën nga taxaw nga tufli ci awards yi sax bu la neexee waaye ñii di ko organiser ak ñi mu intéressé du leen tere ñëw du leen tere bokk man saraxuwuma kenn mais bu fekkee danga génnee loo xamante ne dama gis ni seen normal que way xam nga parce que tout simplement li nga génnee dafa correspondre critères yi dinaa ñëw def li nga xamante ne ñun organisation bi ñun loolu moo ñu war mooy yëgal la xamal la bu fekkee da nga décidé ne doo bokk nag du ma la du ma la du la ci forcer am na ñoo xamante ne dañ lay expliquer lan moo tax bëgguñu bokk am na ñoo xam ne duñ la expliquer am na ñoo xamante ne duñ la wax dara dañuy rek noog toog noppi donc euh, c'est pas à ñun waa Point Blank Pro dem di saraxu artistes yi pour ñu bokk wala forcer leen pour ñu bokk loolu du sax suñu cër yaa ngi dégg mais dañoo toll foo xamante ne événement yu mel nii on en a besoin on en a besoin amul benn artiste buy rap sa carrière nga ne faale woo trophée wala soxla woo trophée. Galsen Hip Hop Awards mënul taal carrière kenn Galsen Hip Hop Awards mënul fay carrière kenn mais repère la dina la permettre nga xam foo toll. yaa ngi dégg yokkute la rek xorom la ci soos mais ça ne veut pas dire que boo jëlul trophée doo dem ci sa carrière Elzo Jam donc 2017 xaw ma 2018 euh, fii cinq trophée cinq nomination la amoon benn trophée jëlu ko. yàlla ñëw tàcc ko ren mu jël li muy jël dem yoonam te pourtant kenn déggu ko kenn gisu ko yaa ngi dégg gis nga Sénégal le plus faux mooy fans yi ak public bi nga xamante ne comprendre ñu c'est trop facile nga ñëw toog ci réseau sociaux yi téye sa clavier bindalu la neex c'est trop facile nga téye sa sa sa benn portable def benn vidéo wax ci lu la neex tëmbal ko ñëpp partager ñëpp seetaan man ku am problème ak man wax ma ko buñ ko mënee waxtaan ñu waxtaan ko Galsen Hip Hop Awards première deuxième troisième ba quatrième édition ana lan la ji leader waxul waay di keroog ba ñu toogee waxtaan fan la ñu mujj dag ma laaj li nga xamante ne comprendre ko ma expliquer la détail cat ba cat ma ne la maa ngi ñëw sa rajo ba ma ñëwee ma expliquer la nga comprendre loolu du ñàkk fayda de c'est la grandeur parce que boo xamul di nga wax lu ne mais bés bu ñu la expliquer nga comprendre ci nga yeew da nga ah da ngay jàpp ni comprendre moo tax ma delluwaat fi ma tàmbale Sénégal on a un problème de communication te pourtant fu ne daan naa fay dem muy rajo di télé di site web façon interview bu ne def naa ko pour expliquer gars yi lii ak lii ak lii ak lii dama jàpp ne nag am na ñoo xamante ne sama jëmm moo leen di déranger am na ñoo xamante ne peut-être que le fait que waaye di ci boppam euh, nekk ci fës ci événement bi moo leen di déranger parce que xam nga lan laa jàpp. am na loo xamante ne bu ma nee dama ko bëgg a def lu ndaw bu dérapé waaye di la ñuy wax loo jël nga délégué ko bu yàqoo sama tur la ñuy wax te am na ñoo xam ne boo jëlee nga délégué bu ñu woowee artistes yi pour wax ñëw ñoom wala pour jéem leen xamal dinañ perte temps am tur lëndëm leen wala ñu ñàkkaloo leen fayda yaa ngi dégg événement dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ko moom dafa am ñoo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw di ko organiser pour benn pour pour toute une culture yaa ngi dégg ku jàppe ne événement bi xam nga yëfu euh, euh, maa tay la wala yëfu farand la wala yëfu ñàkk fayda la wala quoi loolu sa xam-xam sa xalaat moo toll foofu. ren ji tamit gis nañ benn affaire bu xew si ORC yi euh, par rapport ak affaire u Mor Drive bi nga dugal ko si maire lyriciste yi. ñu toog benn temps nga génnee ko xaw ma da da ngeen juumoon affaire yooyu lu mu demee noonu doon ci expliqué mu leer parce que moom def na ay vidéo di wax mais boobu ba léegi dégguñu nga wax ci. moo 2006 la jógee Thiès ñëw Dakar. maa mais moom from Thiès nga ko dëkkal sa from Bawol walla non non non en fait euh, dire euh, pour rek wan la ne man aw ma problème ak moom xam naa ko du tey yaa ngi dégg maa jël sama téléphone woo ko mais je pense que man tey toll naa foo xamante ne. Euh, c'est même pas ma ci wax quoi lu mu leen expliquer rek loolu. waaye di sayfa yi naka ngeen koy tànnee sayfa yi booy yi fa nekk parce que jamono bi sayfa yi surtout 2019 waaye di niveau bi dafa baax. pour lan nga ne dafa baax man ci man baax ci man baaxul. par rapport ak wala daf ci am ay artistes yoo xamante ne xamoo leen moo tax. <laughs> waaye daf ci am ay artistes yoo xam ne da leen di déglu xam ne ñii non euh. xaw ma ku ko jox waaye di mais tooñ nañ ñu quoi. non di déglu ay sayfa di yàqamti muy gaaw a jeex. ren jii la dal sénégalais yi par rapport ak niveau bu Akhlou Brick ak ñoom démb ak Ngaaka Blindé ajoon niveau bi. waaw xam nga gis nga tout le temps gis nga Saïfa en cinq éditions am na ñoo xam ne boo leen laajoon ñu ne la Saïfa daaw yee ne boo leen laajee ñu ne la Saïfa ñun Fara Freddy a dàqal am na ñoo xam ne boo leen laajee ñu ne la non Saïfa ñun dibbi moo ñu dàqal am na ñoo xam ne boo leen laajee ñu ne la Saïfa ñun ndongo ak xumaan moo lañ dàqal ku ci nekk am nga say choix yaa ngi dégg donc c'est pas basé sur des critères c'est-à-dire on donne de l'opportunité à tout le monde parce que gis nga boo toogee nga sélectif ci ay euh, ci ay artistes yoo xamante ne euh, euh, nga ne noonoo man ñii rek laay jël ñii rek laay jël ñii rek laay jël du ma jël ñii rek du ma jël ñii rek du ma jël ñii rek c'est que organisation bi timing lay dawee mënuñu toog di xaar ne xaaral ma xaar ba keroog may découvrir diw pour mën ko cee boole yaa ngi dégg boo seetloo saay fay yu njëkk d'habitude dañu doon am ay 6 wala 7 MC ci benn cypher lan moo tax ñu wàcc ba cinq parce que talent yi du question de amul mais dañoo naqaree gis yaa ngi dégg doo toog nag naan xaaral ma xaar ba gis parce que doo tee tamit xam nga sa euh, euh, kii nu mu tudd on reçoit plus de trois 300 demandes plus de 300 demande pour ñu bëgg a bokk ci cypher yi. dangay toog nga sélectif tu as besoin de 27 MC mais 27 MC yooyu bu ñu mëtee mët na keneen ku bëgg a kii da ngay nag mu xaar déwén. mais waa di ñan ñooy jury Galsen Hip Hop Awards yi lënt na si xelu gars yi. question teg xel la man question boobu bu ñu ma koy posé tout le temps bu ma ciy wu tontu sax man je dama dans ma tête je me dis que man je suis en train de manquer de respect à ces jurys là mu neex mu naxari ñoom ñooy jury yi fi nekk dinañu xool nag comment mettre benn comité boo xamante ne dinañu ñëw xool lan xool nan la ñuy améliorer yenn choix yi. balaa jury di jël seen décision samay jury démb ñooy samay jury tey du ñu changé xumaan dama ko wóolu je fais confiance en ses compétences Jojo bu Yatfu dama ko wóolu je fais confiance en ses compétences Keyti dama ko wóolu je fais confiance en ses compétences Koko Jean dama ko wóolu je fais confiance en ses compétences Pape Mamadou Camara noonu yaa ngi dégg donc nañu bàyyi tout le temps ku gis loo xamante ne doxul rek nga weq ko ci lakkan mooy jury yi wala lan mooy critères yi cinq ans man je préfère des critiques constructives que ngay mettre en question li nga xamante ne moo fi nekk depuis longtemps. waaye de yaa ngi waajal benn euh, panel boo xam ne pour waxtaan ci Galsen Hip Hop heure si 2020. Ah, réflexion la kooku c'est voilà de toute façon on va prendre contact ak ñi nga xamante ne ñoo yelloo toog ci waxtaan boobu. wax ak ñoom amul problème. 2020 lan lan lan mën a xaar 2020 ci yokkute loo xamante ni amu ci woon ñu ko ciy xaar 2020. Euh, façon comme ni ma leen ko waxee déjà xam nga commencé nañu jël contact avec des artistes de la sous-région dañuy ñëw Galsen Hip Hop Awards restera toujours Galsen Hip Hop Awards. voilà parce que gars yi nee nañ Dakar Hip Hop Awards nga ko war a tuddee. ndax animateur raison yi gis ñu seen bopp. waa léegi maa bañ tuddee ma ko Dakar hip hop awards Galsen hip hop awards laa xëy tuddee. am nga si droit moom mais animateur raison yi. mais animateur région yi dégg la wax animateur région yi bu am bu leen bu ñu am dara lu leen metti déwén bu soobee yàlla dinañ leen utal seen catégorie bopp mais dañu war a xam ne fii Dakar mooy Ligue des champions. champions yi fii lañ nekk ñooñu nan lañ ci naree bokk loolu la ñuy toog réfléchir ci xool nan lañ leen di euh, fexe ñoom ñu bokk ci. mais nagaa yi bàyyi di wax ay Dakar hip hop wala première édition 2015 hardcore side fan lañu jóge euh, Dina Tamba fan la jóge Akhlou Brick fan lañu jóge waaw de 2000 première édition laa la wax waaw di nga dëgg la am na solo mais waaye di dafa am loo xamante ni xaw ma ndax mi ngi lay dal wala dalu la hmm. comme man maay teewal mbedd bi fu ne ga Canabasse dafa am Canabasse <laughs> dafa am fu mës a taxaw na jomm naa dem ci awoor sa awma trophée loolu ay lut la waaye sa saa bu bokkee day am dara euh, man de mosuma dégg fu mu wax loolu te mosuma ko wax saay fam bi saay fa bi nga defoon foofu waaw bës la saay fa bi nga leen defaloon dëkk bi loolu égo trip la waaye waaye jiili daal moom. <laughs> non mais écotrip la mais écotrip bu tombé la kon. yow tey yaa na fi mu ne nii instant yaay teewal mbedd mi non. mais am na beneen animateur bu fi wax ne moo fi la may seen nee mooy taalibe number one hip hop Galsen. waaw moom hip hop Galsen la ak ñeneen ak mbedd mi. mooy mbedd mi ba léegi. waaye di kaw Prip Dip moo nekk révélation de ne waaw ci kaw Djily Der. ci kaw Djily Der. non. loolu mais kaw Prip Dip gënu ma nekk révélation waaw loo loo révélation ci animateur nag gars yi tollaguñu foofu quoi. mais waaye di révélation dama waroon boole lépp. waaw mais écoute révélation xam nga ci lan la Galsen Hip Hop euh, Point Blank Pro basé sur euh, euh, la révélation de kaw Prip Dip parmi artistes yi nga xamante ne deux mille deux mille dix neuf bii ils ont eu une bonne présence médiatique une bonne présence musicale. Euh, def de grandes scènes ba ci om seenu Omzo daala seenu Kanaba euh, euh, seenu seen seenu Ngaaka arena ba xam nga seenu nit dof bi show of the year def les grandes les grandes rajo panel plateforme yu mag yi yaa ngi dégg ba pare ci kaw loolu yëpp amul benn album ba pare il est le seul artiste bi nga xam ne amul benn produit le marché bokk ci ay featuring yoo xam ne c'est des albums et des mixtapes qui sont en compétition di faj gaa yu bëri ci fikiri yi. waaw léegi limal ma ban beneen booy moo def loolu yëpp. Euh, non man bu ma doon lim naara pii laa wax mais nekkatul booy. waaw pii du révélation. du dafa yéex a génn rek mais du révélation. waaw baale woy est-ce que déwén est dina bokk ci saayfa bi déwén. non kooku est-ce ci sama top tête ah, yóbbante na ma de nee na ma waxal ma waay di. Euh, fa axlu birik ajoon baar bi. moo koy àjji. kon boog bienvenue. waa Lourou Rab seen compilation bi participé wul li tax participé wul da ko waroon dugal ci meilleur album yi nga génnee ko yóbbu ko ci mixtape euh, compétition bu mel nii yow je te pose la question bu doon yow ci ban catégorie nga koy dugal déjà format bi mu génn ci ban catégorie. ñoom seen bit yëpp dañ ko programmé. waa seen bit yëpp dañ ko programmé wax ji du loolu wax ji c'est une brochette d'artistes la du groupe c'est une brochette d'artistes compil compil mënul nekk album. waaw mais soo foo mënti dem ci àddina compilation mënul nekk album albumu kan la. waaw boobu. ñoom du kii kan moo ciy rappeur foofu. Izap. non wax ma rappeur laa wax quoi rappeur. waaw mais Izap rap na laa wax jiili. kan moo ciy na si. si bi. wala rap. format bi mu génn. format wu mixtape la. ñoom ñoo ne génnewuñu loo xam ne bëgguñu day compétir. ok d'accord ba ma demee toog ci émission rajo ma dégg beneen version ma xam ne ñii bëgguñu bokk y a pas de souci li gis nga forcé wuñu kenn quoi franchement forcé wuñu kenn forcé wuñu kenn man am na ñu may woo ne ma mais waaye di yow c'est comment yow pour quoi sax yow ngay woo artistes yi di leen laaj ndax bëgg nañ bokk wala bëgguñu bokk loolu fii rek la ame tolluñu foofu mais ku la ne bëgguma bokk munoo ko forcer. lu tax Wally du présenté du présenté artiste bu mu xamul concert. lu tax gis nga euh, sa géwél bu lay tagg sax il faut mu xam la pour mën a wax loo xamante ne day laal sa xol yow boo xamul nit ki loo koy loo koy wax boo koy tagg. waaye de xanaa du Swiss business rek yaa ko fi wax xanaa du liggéey rek. waaw surtout bi non bu ñu ma wooyee pour ma présenter concert sa dépend tamit ci yan concert la man maa taxaw ne du ma présenter concert n'importe quel concert. teg naa ci delluwaat du ma présenter n'importe quel concert. xamoo leen dara dem leen jàngi ñan ñoo ko moom. loolu nag bëggoon naa ko leeral ba ma kay wax ba may maa ngi woon période boobu ma ngi woon RDB dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci game bi di yàq dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci game bi indi ñu dara dafa am ñoo xam ne dañuy nekk ci game bi li ñuy génnee c'est vraiment du n'importe quoi. am na benn grand fait bu ma mun a ne non artiste bul mos a wax ne artiste bi xamul dara wala xamul dara man. culture hip hop bi ma xam ak kodam quand un MC il est nul ça me dérange pas de lui dire qu'il est nul. yaa ngi dégg voilà bu fekkee danga nga nul wala li nga génnee baaxul man ça me dérange de wax la carrément li nga génnee baaxul. pour lan ma koy teg wala après nga may woo naan ma lan moo tax sama son jàllu sa émission pour naa jox naa la sama seede. loolu bi nga koy wax lu taxoon nga koy wax. parce que lu bëri si loolu lan la meree. non non ma meree tamit c'est parce que moom la wax mooy li ma wax communication parce qu'ils n'ont pas compris. yaa ngi dégg parce que émission bi ma doon animé Up TV la man aw temps bu may perte c'est-à-dire su ma doon tourné benn ma nekk di def benn émission boo xam ne Rap Galsen laa ciy teg ba pare ma nekk foofu naan damay classe ñi nga xam ne ñooñu laay teg pour lan amul sens. dafa am ñoo xamante ne bu ñuy def li ñuy def c'est-à-dire da am na artistes yoo xamante ne ko dama koy wax tout le temps dafa am ñoo xam ne dañoo soxla ndimbal nga puus leen ñu dem am na artistes yoo xam ne da nga leen war a tàccu parce que franchement chapeau dafa am ñoo xamante ne dañoo war a bàyyi yaa ngi dégg ñi war a bàyyi nag wax joobu ñoom ñu wax boobu noonu ñoo ñoo ko moom yaa ngi dégg voilà bu gaa yi jàpp ne ñëpp lay waxal quoi. waxuma ñi war a bàyyi ngay wax. ñi war a bàyyi nañu bàyyi. waa di suñu émission jeex na. waaw di lay bëggee bu baax a baax. non kontaan rek yow moom ca kaw ca kanam. seen Power. sama jeem <laughs>